maa ngi tudd maa ngi tudd Mame Awa Seck euh, nekk adjointe maire commune bu Ngourane ànd ak monsieur Mamadou Fall premier adjoint maire ñëwoon fii représenté fi le chef de le maire Cheikh Dieye Thiaw Seck bi nga xam ni dafa bëggoon na ñëw fekke ci réunion bi mais liñ naan jàmbeeg bëgg-bëggam mais bur yàlla ak dogalam mu jul sottal moo tax mu yebal ñu ñu ñëwoon fii tey euh, fekke ci tey réunion bi nga xam ni dara waralu ko dul parrainage yi ñu war a commencé def. léegi jël ngeen rabbi le maire Cheikh Dieye Thialaw Seck dafa fas yéene jàppale candidature Amadou Ba ñu fas yéene liggéey pour que incha allahu rabbi ñu am le maximum de parrainage foofu ci commune Ngourane pourquoi pas sax ci département Kébémer. Mmh. incha allahu rabbi dañ ko bëgg a doubler waaye fasuñu yéene mu wàññeeku benn yoon.